jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen yoo mbokk yi rek dañuy door comme niñ koy defee saa su nekk ci Medina TV kon sëñ Moussa Ka lañ ciy àndal xam-xam la ñuy waxtaanee leen jëmm ji miin ngeen ko ci fi nga xamante ne moom mooy Medina TV saa su nekk rek mooy def sotti yu am solo di génne li nga ne moom mooy xam-xam waaye tolluwaayu réew mi gëjoon ngeen koo gis nag mu nekkoon ci rukkam liggéey bi ko tënkoon ñi ko soxla dañoo bëri macha allah taxoon rek euh, mu daal di làkkatu kon nekk ci waar wi waaye tey dafa génn jàkkaarloog Sénégal ndax nee naa leen réew mi bu tollee fii day baax borom xam-xam yi génn daal di rek àddu ci li nga xamante ne moom mooy dalal réew bi sëñ Moussa ñi ngi lay nuyu amaan mbégte lool loolu ak contentement ñëw fekk si la tey. Mm-hmm. waaw soxna Diarra ñu lay fay di wax rabbi shrah li sadri waysir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli yaa man bi am daahi taatil busharu yaa Moustapha yaa rasulullah yaa basharu mm-hmm. ñu leen di nuyu waa Medina TV di leen dalal si suñu jotaay bi. Mm-hmm. Eh, di nuyu Cheikh Mahamadul Muntaxa xalifa général bi eh, yàlla na fi yàgg loolu te di leen nuyu bu baax a baax a baax dépla déplacement bi ngeen def fii. Mm. ñu war ci am ay waxtaan yoo xam ne waxtaanu xam-xam la. Mm. ak waxtaanu leeral leeral la donte gëj nañoo ñëw ci Medina yi am mm. ay mbir yoo xam dañ ko fi leeral. kon nga xam ne dinañ si dañu waxtaanee xam-xam. dinañ waxtaanee tamit loo xam ne. ñëpp ñu ñuy déglu dañ si mën a jëriñu. Mm-hmm. incha allahu rabbi bismillah. ayca am na solo sëñ Moussa waaye balaa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi fan yii dafa am tiis boo xam ne dafa wàcc ci réew mi kon muy génn àdduna Mama Kiné Diouf Diaga. Mm-hmm. Euh, Mama Kiné nag peut-être ñu bëri xamuñu ko gis nañ ko à travers la waaye rek mu nekk ci kilifa ci ki nga xamante ne moom mooy Wally mm-hmm. te Wally ko xam-xam ne kon nit ko koo xamante ne day bégal réew mi kenn ku ci nekk rek da ngay gis sa bopp ci moom dañ lay bàyyi rek kon nga jaale kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokkam waa di wax inna lillahi rek wa inna ilayhi rajiun euh, loolu aduna ak faatu ñoo ànd suñu borom moo wax kullu nafsin zaahiqatul mawti maanaam képp ku nekk sama adduna bi rek yi ma defal la ngay noy ci sama sama sama air bii di ñëw si kattanu yàlla lu yàgg-yàgg danga faatu mm-hmm. ñu ngi jaalee waali di ko ñaanal yàlla na ko yàlla kattanal mm-hmm. di wax ne soxna jaara léeg nga gis nit faatu ñi ñi génn di wax lu ne mm-hmm. dégg naa sam sëriñ si naan depuis bi magam bi gaañu ba léegi feebar bi bàyyi ko. Mhm. nañu bàyyi loolu. Mhm. gis nga yàlla moo fi nekk te yàlla mooy rayee soxna soo soxna su baax la. Mhm. li gën a yéeme ci kaw suuf mooy ñi nga dafa am ñoo xam ne dañuy génn di wax te li ñuy wax duñ ci xam dara dara dara dara. suñu boroom dane maanaam fas fas alu ahlu zikri in kuntum laa taam na ngeen laaj ñi nga xam ne dañoo xam. bu ngeen xamul su boobaa rek dañ leen xamal. soxna soo soxna su baax la. man mii di wax ak yow bokk nañ groupe boo xam ne bokk na fa ay ati at ñu bëree bari xamuñu ko mm-hmm. te groupe boobu képp ku fa bokk nit ku tedd ngay doon nit ku sell ngay doon mm-hmm. groupe boobu képp fa bokk boo amee ku deele wala nga faatu dañ la defal naafile yoo xam ne bu dee suba la ajjana nga jëm direct bu dee ngoon la ajjana nga jëm direct mm-hmm. loolu ñu bëree bëri xamuñu ko kon nga xam ne ku baax la te aduna nax ko benn yoon aduna naxu ko benn yoon. Mm-hmm. xamoo ne dana dana am ñi ñoo xam ne aduna da leen nax. Mm-hmm. dafa dajale li ñuy wax alal ak maanaam ak aduna mooy nit ñi boo leen amee ak alal nga am ko mu mm-hmm. bàyyi ko ginnaaw. ndeysaan mu bàyyi ko ginnaaw kon soxna su baax la. man la jotaay groupe boobu noonu mu bokk ku dul ku tànnee ku dul ko nar a texe doo ci bokk te moom si la bokk. nga xam ne kon li nit ñi di wax weesu na ko. kon si ngay xamee ne kii soxna su tedd la soxna su baax la. léeg-léeg nga gis sëriñ bi génn naan diw ba mu ba mu diw nekkee si moom ba léegi day day faat day deele nañ bàyyi loolu loolu waxi waxi waxi dese la suñu boroom ku tedd la gis nga nit ku ne bu diggam jotee fifteen wala maanaam maanaam benn waxtu wala benn seconde du si tegu mhm. isa ja ajruha laa sexuna saata wala sax di mun mhm. suñu boroom bu bu la faat bu faatu dikkalee doomu aadama lu tolloog tarfata ay ni du ko si yokk du ko si wàññi. Mm-hmm. lenn rek moo mën a yokk fanu doomu aadama muy sarax. Mm-hmm. lenn rek moo mën a maanaam gaaw a jeexal dund doomu aadama muy bàkkaar. Mm-hmm. lu mel nekk fenn wala njaaloo wala mooy yàlla. wala lekk ak jaamu loolu day day day day xëcc fanu nit ki doo mu gaaw a faatu. kon jaara euh, loolu na si nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a baax. suñu boroom. buy maanaam buy buy buy faat buy faat nit ki day fekk lépp lu mu yoroon maanaam ci wërsëgam ci kaw suuf da koy lekk. Mm-hmm. waaye coow yi nit ñi xewal lii maanaam reyul kenn. Mm-hmm. taxul kenn tamit ñàkk. Mm-hmm. te li ëpp ci nit ñi léegi dañoo bokk ci nit ñi nee nañu loolu moo gën a bon ci doomu aadama. boo bëggee texe da ngay bokk ci kuréel yi kuréel yi ñooy ñi nga xam ne ñoom lay araabi di wax xaw mun. azizun jaaruhum lakinnahum yaslu an waalidinu mawlidi Mm-hmm. nga bañ a bokk ci ñi yàlla di wax wa minan naasi man yujibuka xawluhum fi lxayaati dunia wa yusidu llahu ala ma xalbihi laddul xisaam mm-hmm. wa iza tawalla saa fi l ardi lu yusidu fiha wulikal xas wa nas wallahu laa yuhibbul fasaad mm-hmm. dafa am nit ñoo xam ne dégg naa rek buñ taxawee li ñuy wax li muy rafet rafet rafet buñ la wenee ginnaaw mën nañoo yàq aduna ñu bëri léegi noonu lañ xam kon nañ fexee ne a bokk si nit ñi nee nañ di bokk si kuréel yi nga xam ne dañuy jubal te xam fi ñuy teg seen di si leeral loolu nga xam ne soxna soosu tey waxuma la jëf yi muy jëf li ñuy wax jëf na ko ci di ko defal néew di ko defal bàmmeel yi soxna jaara mais maanaam jotaay groupe boobu mu bokk nga xam ne ay nit ay wàlli yu ñu ngi fa mm-hmm. ay nit ñu baax ñoo fa nekk mm-hmm. man mii sa laa bokk mm-hmm. nga xam ne tey ku fa faatu balaa jant soo ñu tàbbal nga texe loolu kon nit ki boo gisee mu ne nga xam ne kii ku baax la te xam nga jaar li tax maanaam nit faatu di ko dikkal. nit mhm. dafa am lu koy woo muy bàmmeel. Mhm. chaque jour da lay woo jox ma ruugi jox ma ruugi moo tax nit ki bi ñu demee bu teg ko ci ko bàmmeel si lay bàmmeel di doog a nag am jàmm. Mhm. nit dafa am lu koy woo nit ku ne am na loo xam ne moo topp sa ginnaaw di lay woo. te na jaara damay fàttali lii ñu jàll si leneen. nit dafa am lu arab di wax. innal jadidayni. iza ma istawlaya ala al adna laahu bilaa. loo bañ-bañ loo nangu-nangu loo muus muus loo bëri aral bëri aral guddi ak bëccëg ñoo fi nekk ñooy aw awloo doomu aadama bu yàggee rek màggat dikkal la mhm. ñun ñu ñëpp guddi ak moo ñuy aw awloo loo bañ bañ bañ guddi mhm. loo nangu nangu nangu bëccëg jël mhm. te loolu bu yàggee màggat dikkal la kon sa guddi bu ñëwee na ci ciy jëf-jëf yu baax yan ko ba mu diis nga xam ne gudd bëccëg bu ñëwee doo ko réccu loolu maa ngi koy jox képp koo xam ne doomu aadama da nga nekk jullit te fas yéene xéewul bëgg xéewul si àjjana suñu borom ja mhm. loolu maa ngi ko ci wax di jàll yow ci yeneen question yi aca mhm. am na solo sëñ Moussa loolu mënul woon ñàkk kon mhm. ni nga ko waxee rek dañuy dañuy xuus kon ci waxtaan bi dooree ak li nga xamante ne itam mooy ñaawtef bi nga xamante ne am na fa nga xamante ne moom mooy Seras yaakaar naa ne loo xamante la ñëpp ko gisandoo te itam biñ ko déggee yaakaar naa ne loxo dar na gémmiñ ndax lu mel ni nit rendee moroomu doomu aadamaam yaakaar naa ne lu ñaaw a ñaaw ñaaw la ci réew mi sëñ Moussa. Euh, aduna dafa doy waar dafa doy waar te gis nga li ma la doon wax sànq rek da ngay gis façon ñaawteef yoo xam ne musoo ko danga ko doon dégg rek te musoo ko gis léegi danga koy gis. Mhm. xam nga ne nit yàlla dogal na mu faatoo nu ne waaye nit kuñ tëral rendi ko. Mhm. loolu ñi fay ñi nekk ci bërëb liggéeykaay sa nee na ñu ngi koy doo gis. Mhm. moo tax jamono bu doywaar lañ nekk. jamono boo xam ne ku si manqué jaara soxna jaar lu ñàkk fayda moo lay rey. fekk sa dund lu am solo la gis nga dafa am loo xam ne nit ki da ko war di def ci yaramam surtout nit ki buy génn bu fekkee da ngay génn amoo yenn kaaraange loo loo yàkkamti yàkkamti na nga jàngale xat jaakum rasul anfusikum azizu ali ma xanitu arisu bin mumin rauf rahim fente wala faqul xasbi allahu nga baamtu ko juróom-ñaar nga génn suñu borom dañ la musal ci weñ du la du la faat moo tax ma ne la am na am na soxna jaar am na ndomba yoo xam ne day ànd ak tul. bu ñu koy liggéeyal góor di ko liggéeyal jigéen bu dee jigéen fas lay doon. am na ñoo xam ne yónnee na leen ko ba Amérique nga xam ne ñoom bal fetal lañ xam. am na ñoo xam ne ñu ngi ba euh, Allemagne yónnee na leen ko. nga xam ne tey boo ko amee maanaam loo rep rep rep yàlla dañ la musal si fetal wala weñ mu lay rey. Mhm. kon loolu nit ñi dañ koo war a wut. gis nga jamono jii nii dafa am maanaam façon ñaawteef yoo xam ne parce que seytaane ak cat ak làmmiñ ak timit liggéey day laxasu si loo xam ne musiba la day rey nit day laxasu si oto day laxasu si weñ day laxasu ci dof day laxasu si koo xam ne mën na dem ba tàbb si ñoo xam ne boo moytul musiba dal ko fa kon li may wax kaaraange soxna jaar képp ku ko amul billaahi wallaahi jamono ji ñu toll lu ñàkk fayda dana la faagaagal mm-hmm. te nit bu la yàlla bindee ngay nit mu jox la alal yëkkat nar mu attanoo sa bopp fukki junni nga def ko sa bopp. Mhm. suñu borom da lay jéppi. Mhm. xanaa xamul suñu borom du def multimilliardaire koo xam ne koo koo xam ne fukki junni mënu ko si boppam. Mhm. foo fekk borom alal day fekk bu amoon téeméeri junni mën na ko si boppam. faaw sa bopp jaral la suñu borom doog la jaral. loo dem ci sëriñ sëriñ mu ñaanal sa bopp jaralul dara doo ko am. gis nga mm, bàyyi ji li mbay le le multimilliardaire bi nga xam ne moo nekk njàmbur Louga. di jaar waa kër maam Cheikh bi mu nekkee tu tànk daara ja da doon dem jënd alalam def ko lekk di ko seddale jaamu yàlla mm-hmm. mu leereen kii dafa géng alal su la ko suñu borom defee multi milliardaire façon fexeel bu ne fexeel nañ ko dem nañ ba nañ ko faat waaye ñaan gu nekkoon si moom moo tax dara mun lu ko dara mm-hmm. kon nit ñi na ñëpp ku mënti doon koo xam ne yaa ngi dugg dugg si yaa ngi dox si kaw dénd bii dee dikkalagu la boo bàyyee sa bopp yu ñàkk fayda yi maanaam di la faagaagal suñu borom dalay mujj dalay jéppi ñu borom dafa bëgg nit koo xam ne day aar boppam day fekk boppam. Mm-hmm. kon loolu falaa fay yam soxna jaar bu ko defee di xaar sa yeneen question bu baax a baax a baax. ayca mu mel ne kon sëñ Moussa jamono ji kuy dox te amoo kaaraange yaa mm. saraxe sa bopp. yaa saraxe sa bopp. Mm-hmm. sa bopp maam kaaraange dafa baax ci lépp loo gis dañ koy wut kaaraange dafa baax sax soxna jaar sa sa njaboot. Mm-hmm. nga xam ne. ñoom am nga si ñoom yaakaar. Mm-hmm. kaaraange dafa baax si nga xam ne sa alal boo yoree alal mm-hmm. tey. da ko war a aar ba nga xam ne musiba dala si musal mm-hmm. waaw sàmm sa alal parce que nit koo gis ku ne muy dox am na ku ko teg bët wala am na ñu ko teg bët. nit kuy dox si kaw suuf am ñoo xam am ñu la xam. am na ku la bàyyi xel wala am na ñu la bàyyi xel. kaaraange mooy lépp. kaaraange mooy lépp. moo tax boo demee ci benn bayitu Cheikh ban mu ngi naan huwa allahu yaxmii nii mhm. wa yaxmii jamia ma lixtaar fi daarin wallahu waasun mhm. suñu borom moo may aar mooy aar lépp lu ma wër mhm. si ñaari kër yëpp du ma fi gis dara dara loo xam ne dana ma indil benn taq-taq kon muy góor muy jigéen dafa war a am lu nekk coow ba nga xam ne. Mhm. boo ko amee suñu borom da lay defal tawféex yu bëree bëri di nga si mucc. ca nga aar sa bopp nga aar sa bopp kaaraange dafa baax si doomu aadama. ayca mhm. am na solo suñu Moussa yaakaar naa ne loolu ñi ñuy seetaan dinañ ci bàyyi xel. Mhm. waaye rek ba tey ñu ngi dëgmal élection. yaakaar naa ne ñëwoon nañ fi. am na loo ñu waxoon ci Ousmane Sonko wax nañ ci waxan waxati ci boog. Euh, fi mu ne nii yi daanaka li ci des du bëreetul. Euh, lan ëllëgu Sénégal ak politique sëñ Moussa lan lañ ci mën a xaar. ëllëgu Sénégal li si njëkk maanaam lu ñu yàkkamti yàkkamti président lu ñu yàkkamti yàkkamti njiit suñu ëllëg. Mhm. ëllëgu Sénégal réew mi dafa toll foo xam ne dafa jaxasoo si ay mbir. Mhm. Mhm. dafa jaxasoo trop trop trop. xam nga Ousmane Sonko li tax mbiram mi demee nii. li tax mbiram mi yàggee nii demee nii ba nga xam ne def nañ ci lu ne. dafa woote loo xam ne dëgg la ci moom ku woote loo xam ne dëgg la suñu borom dalay nattu. loolu tax suñu borom jaarle ko yoon bi segg naa feqe yëpp ñi nga xam ne dañ doon rumboon te dara gëmuñu ko. bëri na bëri nañ daa mel na ñu si des bëri na ñu daw. Mm-hmm. lépp loo woote te muy dëgg sow suñu borom dañ la si nattu. Mm-hmm. parce que moo taxaw ci ñëpp di ko xool mu ne fa isa ci mbir. Mm-hmm. bàyyil ak bopp bàyyil ak sa bopp. suñu borom ne ko ay bismillah moo tax coow yi nga doon gis nii yëpp. fii rek la mënoon a jaar suñu borom moo ko li mu woote dëgg la ci moom mm-hmm. mais dafa am ñoo xam ne topp nañ ko waaye du dëgg si ñoom moo tax suñu borom seggal ko lii mm-hmm. te gis nga bis buy ñëw bay am dara ci réew mi lu tuuti lay dese waaw day dem ba yaakaaratuñ ko maanaam ba yaakaaratuñ ko lu tuuti lay dese man ñoo bëree bëri ñoo xam ne dañ si topp ba nii nii ñu ngi siy wax yàlla xam na ne lu néew la ñuy bàyyi foofu mm-hmm. man maa la ko wax parce que li mu woote lu dëgg la ci moom te fi ñu koy maanaam fi ñu koy fi koy soxlaatee dana dem ba nga xam ne lu ëpp ci ñi nga xam ne toppoon nañ ko dañ koy won ginnaaw. Mm-hmm. kon loolu dinaa ko ci résumé euh, wax la ci loolu nga xam ne tey ñu bëree bëri nekk si biir nañ ko seet xam xool li ma leen wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ayca euh, présidentielle yi li des bëreetul. Euh, ndax surprise mën naa am tey. ki nga xamante ne moo nar a jël réew mi cinquième président. ndax mën na bett ñëpp. mën na doon koo xam ne bu ñëwee day bett ñëpp. bo te boo moytul foofu lay jëm. ndax xam nga lu tax maanaam réew mi moo bindoo noo xam ne nañu xool li fi weesu woon ñi ñu jiite ñëpp kenn amatu si woon ñoom yaakaar. kon xanaa xamoo réew mi jox na jaara boo ko buggee jiite bu ñu nee la yow la yow la bañal. bu ñu la xoolal ñi fi jiite woon yëpp. am na ñoo xam ne demoon nañ ba amatu si ñoom yaakaar yàlla def ñu jiital leen. mooy góor gi wàdd am na koo xam ne mbetteel lañu ñu dikkee bi muy dugg si. ñu ko xam ñi ko xam boobu amuñu woon amuñu woon temps wax ak nit ñi. Mhm. mënuñu ñu ko wax biñ koy laata xam dem na dem na ba maanaam yor réew mi lépp. Mhm. kon loolu jërul muy bett nit ñi. Mhm. à chaque fois maanaam ñi nga ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi ci mbetteel la ñuy dikkee. te ñii nii ñuy ngunum ngunumee fii maanaam ñoom seen wàllu bopp dañ am mbetteel gu rëy. te maa ngi wax tamit lenn. ñoom opposant yi. boo mu ñoom seen biir am na xeex bu metti boo xam ne am na seen biir. waaw si biir opposants yi si biir ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo gouvernement bi la. Mhm. ñi nga xam ne ñoo ñoom seen na ah. ñoo xam ne. ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor gouvernement bi ñoo yor gouvernement ne ñoo yor bi nga ñu tànnee bi ñu tànnee seen. njiit Ba waaw bi ñu tànnee seen njiit. Mhm. am na ñoo xam ne génn nañ. Mhm. ne ñoom duñu ànd ak moom am na seen xeex bu métti bu nekk seen biir. te balaa élection yi ñëw ku ci amul bopp dëgg-dëgg doo ko fekk wala doo ko fekkele. waaw loolu euh, man maa la koy wax ngeen note ko nga bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. suñu saa ñëwaatal ma foofu man. Mhm. Mhm. dégguma bu baax dama ne maanaam. Mhm. ñoom seen biir dafa may jafe-jafe. ñoom seen biir. am na ay jafe-jafe. te mais parti au ñoom seen biir. am na ay seen biir na xeex boo xam ne ku ci moytul ñoom seen biir doo ko fekk wala doo ko fekkele. waaw. allahu akbar loolu fa faaw nit ñi bàyyi ko xel. parce réew mi boo ko yoree da ngay yoraale. boo demee armeeru bétuwaar yi am na ko ñu wax foofu euh, Lamine Guèye ci mm-hmm. nguuru sengoor lañ ko faat mm-hmm. nee nañ ñu ngi ne ci histoire dafa bëggoon rey sengoor ñii ne bi muy jóg bu ñu jullee pare dafa bëggoon a jóg te boobu xam nga président bu jógul kenn warul jóg mm-hmm. mu jóg ñu yaakaar ne dafa am lu muy def dafa day def ay pexe ñu rey ko boo demee avancé tuuti ci biir am na benn bàmmeel wëli yu mag bu fa nekk ñaati ñaar ñaari ron ñoo nekk ñoo ko dar benn ron bi ci boobu mooy garab koko yu guddi yi benn bi ci tànk yi benn bi ci bopp bi mm-hmm. boo fa demee yenn heure yi da fa fekk ñoo xam dañuy mel nañu xaw xaye di dañ la secret yu bëree bëri yi daw ci biir réew mi dañ la koy wax parce que ñoo ñoo ngi sa ginnaaw dakaar d'accord loolu bëgguma koo wax fii sax mais dama lay dama lay wax ne dama lay wax li may wax dafa am fu ñu ko teg am am am lu ñu ci bàyyi xel mm-hmm. kon nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax seen bopp. Mm-hmm. parce que xam nga lu tax dafa am ñoo xam ne mën nañoo faagaagalu wala ñu yàqal seen bopp fekk ñoom réew mi soxla woon na leen. Mm-hmm. xam nga lu tax ñu soxlaa leen. Mm-hmm. réew mi dañoo bëgg koo xam ne ki ko yor mu nekk ku baax. ki ko yor mu nga xam ne bu ko yoree ñi nekk bitim réew dinañ ñun ñee ñi nekk bitim réew bàyyi fi seen njaboot yi. maanaam seen xel dina dal. parce que ñi nekk bitim réew soxna jaar dëkkuñu fa. seen yaay a ngi fii seen jabar a ngi fii seen rakk yaa ngi fii mhm. kon faaw ñu am koo xam ne waru ñoo sàggane koo xam ne dafa bëgg a yor réew mi te jàppale ñun ñun ñëpp réew mi jëm kanam mhm. looloo tax ñu si wax mhm. waaye wàllu politique du suñu mbir du suñu domaine du suñu domaine waaye nag dañoo bëgg nit ku tedd koo xam ne mooy yor réew mi réew mi jëm kanam. Mhm. loolu tax ñu siy wax. ay ci am na solo mhm. bu réew mi tolloo fii. Mhm. yaakaar naa ne dinañ ñaan yàlla jàmm. dinañ ñaan yàlla dal ci réew mi. ndax ñëpp xam nañ ne élection li mën a indi ci réew rawatina élection boo xamante ne comme ni nga ko waxee. dafa làmboog ay coow am yu ci laxasuñu ba ñu bëri laam-laame naan élection dina am wala du am. loolu lépp nekk ci suñu kanam tey jii réew mi soxla na ay ñaan. Euh, gis nga bu élection dañuy denc xale yi. dañuy denc yenn genre nit yi sacrifice yi et tout. bu fekkoon am na sarax sarax yoo xamante ne danga koy joxe pour mhm. nit ñi mhm. wala waajur bu nekk mën ko def pour aar li nga xamante ne mooy njabootam mhm. waaw jamono yi soxna jaara maanaam mm, ñëpp war a jóg ñëpp war a aaru gis nga musiba bi day topp di topp di topp ba topp ñu nga xam suñu doo suñu suñu mbokk yi nga xam ne sax ñu ngi bitim réew musiba yi bàyyi wuñu leen parce que dañ ne ay du yam ci bopp borom suñu borom dañ maanaam moytul coow moytul musiba parce que bëri waa na ngay def dara nga yaakaar sa bopp rek lay dal du dal sow de bu ñëwee ki ngay def ci ki koy def ci wetam te du la wax bàyyi li ngay def boo moytuwul mhm. te olof Njaay nee na ñax mu wow lakk na ñax mu tooy mhm. kon élection bu bu ñëwee maanaam si la war a gën a def settantal si tout yi mhm. nga sax xam nga tax élection yu ñëwee nga dégg puune yi ñu leen di rey xam nga lu tax benn melo boo koy wër ci nit mooy puune. puune d'accord. boo déggee ñu naan benn melo ci xar mhm. mooy xar mu amul benn taas taas. Mhm. benn melo ci nit mooy puune moo tax ñu koy ñu koy ñu koy kii ñu koy ñu ñu koy wut. Mhm. di am yu di ñuy li ñuy li ñuy maanaam lu ñuy jël ci cëram yi. di ko booreek. walillaahi allahu maalikul mulki tuutil mulki man tasaa di ko def. nga xam ne tey ñooñu fu ñu mënti nekk bu ñu nekkul président dañu jege président. xam nga lu tax bu élection yi jubtee ñuy dugg ci armeer yi mhm. di sulli yenn néew yi mhm. dafa am ñoo xam ne loo xam ne bu ñu ko xasee ba def ñi nga xam ne ñoo ŋànk di organiser affaire yi bu ñu ko xasee ba def foo mënti jaar yow ñooñu da nga leen woteel te doo si ñemee wax mhm. xam nga lu tax élection yi bu jubsee ñuy ñuy xaral di dugg ci guy yi di daaj am na ñoo xam ne bu ñu leen xasee ba samp loo loo loo xanaa maanaam nga yàqu yàqu rek ngay def wala nga faatu mais mënoo leen simpi mm-hmm. looloo tax élection bi ñëwee ñett yooyu seetloon ma wax la mm-hmm. armeer yi néew yi puune yi mm-hmm. ak xale ñu leen di ñu leen di maanaam soxlawoo parce que dafa am ñu ci liggéey loolu ilmu zulmaaniya la zulmaaniya la bu ñu ko temps bi mayoon dinaa la woon tey façon xam-xam yoo xam ne danga koy wax nga gis mbir yi di daw bu dee buum la bu dee ndox la wala bu dee sama kurus nga gis ni muy def nga xam ne loolu lañ koy liggéey nga xam ne boo ko defee nit ki lu mu dëgër dëgër bopp dëgër bopp dëgër bopp da nga koy gëlëmal. Mm-hmm. kon loolu moo tax ma ne nañ nañ gën a def attention bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te képp koo xam ne yor nga njaboot muy génn. Mm-hmm. na nga na nga koy defal xasbunallah wa niimal wakiim chaque jour na nga koy defal xasbunallah wa niimal wakiim 313. moo jàpp moo jàpp maanaam ñi nga xam ne ñoo jàpp Badar nit du mën ci moom dara dara dara. ñi nga xam ne tamit ay kilifa lañ dañuy génn. mënuñoo ñàkk duggante ak àdduna ak doomu aadama yi am na ay càngat yu ñu si yor ak ay ndombo yoo xam ne bu ñu la ko xasee ba liggéey mhm. képp ku la naral musiba suñu borom teg ko ci sa kanam mhm. parce que loolu ñun ñi essayé nañ ko liggéeyal nañ ko suñu bopp mhm. kon xam nañ ne buñ ko liggéeyee keneen dina ci am résultat te liggéeyal nañ ko bu bëree bëri bëri foofu rek laa may am na solo sëñ Moussa dañuy yem sax ndax mhm. liñ bëgg wax yëpp li si nag bi yëpp ci cin li waaye dinañ wax ci li nga xamante ne itam mooy xam-xam yaakaar naa bu ñu fa toogee lu mënul ñàkk la mhm. dooree ko ci wàllu seet sa diggante ak seet euh, ah. suñ nee seet nag bëri na façon waaye mhm. macha allah nga yor ci façon boo xamante ne bu doy ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante ne yaa ngi jëflante ak yéen euh, yaa ngi jëflante ak ñoom plutôt seet yaakaar naa ne am nañ ci résultat yi nga xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy wut dëgg loolu mënul ñàkk soxna jaar gis nga maanaam seet ñu koy wax listixaar loolu moo gën a war jiitu ci ab sëriñ nit ki bala nga koo defal dara faaw nga xam fu mu taxawee mm-hmm. faaw nga xam moom la kan faaw nga xam lan ak lan moo nekk ci moom kon loolu dama si liggéey nit ñu bëree bëree bëri ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi mm-hmm. ñi nga xam ne ay arab lañ ñi nga xam ne ay yeneen kii lañ mm-hmm. léeg nga siy liggéeyal ay naar am na koo xam ne arab saudi la jóge billaahi wallaahi wa taalaahi arab nekk bi mu ñëwee fii nii ñëw seede yàlla ak ak ak noddu gi mhm. wallahi lazim bi mu ñëwee ñëw ci man wàcc am secret bu mu doon laaj ma defal ko ko mhm. li mu yëkkati si alal jox ma ko boo ko wanee ni danaan yow da ngay soppi xaalis mhm. naari dañuy liggéey loolu ñoom alal lañ gëm ñoom gëmuñu xaalis de ama ñun fii xaalis dañuy lijjanti wutal benn cinq cent mille wala deux cent sa poos ñoom alal lañ bëgg seet boobu moo tax bu ma leen ko seetalee pare te si arab lay doon uhaddisu maahum bi Mm-hmm. ahyaanan ahlul misriyuuna wala wala uh, uh, ahlul misriyuuna wala wala ahlul misriyuuna wannaasu lazina yaskunuuna fi uh, ardi dubaay mm-hmm. yuhaddisuuna maaka wa mm-hmm. yasaluunaka hada al amru um, kayfa kayfa yumkin an an naarifa al insaan walan taraaha xam nga loolu mooy lan mooy maanaam nit ki nan ngay xamee ay jafe-jafem te jàkkaarloog moom gis ko ñoom loolu la leen di jaaxal ñoom loolu la ñuy laaj. Mm-hmm. su boobaa nag suñ ñëwee ba toog nga leen di woon façon xam-xam boo xam ñoom yaakaaru yaakaaruñu ak xam-xam dana yegg foofu. Mm-hmm. seet boobu sox jaar dafa doy waar. Mm-hmm. moo tax dañuy dem ba ci biir ñoom affaire boobu da leen di jaaxal. kon mu nekk mu nekk sëriñ mu nekk keneen du benn làkk olof rek nga mën a làkk ne mën nga seetal ñi ñëpp lu mu da war a dégg leneen. boo demee ci américain yi. wala nga dem tey si yeneen yeneen xeetu yeneen xeetu kii yi ñu ngi dund leneen. Mm-hmm. ñu ngi ñoom dañ naan if I have money. Mm-hmm. I don't care what I don't care what what people say about me. Mm-hmm. maanaam ñun alal moo ñu ñor bu ñu amee alal soxlaatuñ keneen topp si ginnaaw duñu wax. kon ñun li ñu maanaam li ñu seet jaral ñoom jaral leen ay milliards ñun seet ay junni la ñu jaral ñoom ay milliards la leen jaral. kon loolu. dafa nekk loo xam ne mënul ñàkk si kaw suuf mhm. seet boobu soxna jaar moo tax nee naa dama koy liggéeyal ay ne ñu ngi ba Amérique mhm. New York City mhm. ñoo xam dañ leen koy liggéeyal ay tubaab taxaw ñoom maanaam nga leen xoolal maam ñoom da leen si naari lii moo leen jaaxal nan ngay xamee nit ki te nit waxula jaara diw ak nangama nangam moo la dar boo de arabe saoudi kuy dund sariya ñoo la ko gën a dund bañ naka ba Dubaay ñoom lu dul sunguf ak ak lu dul pomaat ak maanaam du fa dugg. Mhm. parce que dañu dañoo ragal xaatim. Mhm. kon loolu seet boobu dafa doy waar. Mhm. dañ koy liggéeyal ñu bëri waxuma la Sénégal wala bitim dañ koy liggéeyal ay naar. ay ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu dëkk dëkk bu ne. kon loolu seet la boo xam ne mënul ñàkk. waaw nit da nga war a xam lan moo fan ngay taxaw sa tànk lan moo nekk ci yow. waaye nit ki warul dund tëñëx tëñëx. waroo dund te xamoo sa bopp. yow ba nature nga. yow lan nga gën a bëgg lan nga gën a looloo loolooy waral nit ki lu ne di ko bett. Mhm. gis nga képp koo xam ne maanaam junni mënoo ko sa bopp suñu borom mënul sew milliard. <laughs> loolu faaw doomu aadama xam ko. maa ngi xaar seeneen question. sa biir wax. Mhm. yaa ngi may ne. Mhm. sarax. dee lépp dara mënu koo fànq ba mu des sarax. mu mel ne suñu musaa sarax lu am solo la. sarax lu am solo la dañ koo desee xam. dañ koo desee xam. li nga wax noonu soxna Diarra dafa am solo gis nga nit ku ne am na loo jàpp léeg-léeg nga am néew mu faatu nga gis ko. waaye dalay wax nangam ak nangam nañ ma ko saraxeel jëmm ja suñu borom du topp jëmm ruux lay topp ruux mooy topp ne ruux du faatu mm-hmm. ruux du faatu moo tax nit dana romb nu bëgg day dox ba fële jékki-jékki ges wàññeekuwaat ñëw jënd ko mm-hmm. ruux mu maanaam dafa sa digganteeg sa digganteeg liñ teg noonu te nga bëgg ko looloo lay xëcc mm-hmm. moo tax nit ku ne am nga couleur nit ku ne am nga loo gën a bëgg nit ku ne am na tey loo xam ne boo ko bëggee boo bëggee jënd tey dara marché doo ne doo jóge rek ne am jaame da ngay dox diggante mhm. ay kilomètres diggante boobu ngay dox mhm. li ñu loolu la tuddee dawrul xayaat maa ngi xaw dugg sax si philosophe mais maa ngi génn foofu loolu la ñuy wax dawrul xayaat mhm. maanaam <laughs> euh, maanaam euh, mënul ñàkk si do faa nga jóge foofu dox dem jëndi ko diggante boobu ñuy wax nag loolu la ñuy wax sax loolooy dox si diggante ak tey musique ba da daw di la dëgmal nit ku repp léegi da nga gis dafa am wàll boo xam ne dafa gis benn xale boo xam ne dafa repp mun leen nañ ko saraxeel gaaw balaa jant so xale bi laqatu génn. Mhm. di jéggi télé bi moog benn xaritam bi mu demee bay jéggi rek am ku téye xale boobu ñu saraxal keneen ki jàll. Hmm. ñu rey oto bi rey keneen ki. Mhm. yaayam ne faatu na parce que waxoon waxoon nañ ko tey la balaa jant soo boo moytul maanaam dana faatu. Mhm. mu ñëw nekk sarax boobu moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko fànq kon sarax dafa am solo. nit koo gis am na sarax bu ko jàng. gis nga am ñoo xam ne aajul ngay sangu. xamal lan yow lan mooy sa sarax lan mooy sa maanaam comme li nit ñi. Mhm. fi ñu toll ne. yaakaar ne bu ñu demul ñu jox leen ay biteel. Mhm. Mhm. wala ay sunguf rek. comme par exemple nit ki ñëw nga sital ko ne ko génneel sarax bi mën na ko xeeb. mais boo ne ko génneel biteel bi ci lay gën a sawar. ci lay gën a sawar. te wax nga xamuñu ne sarax bi nag moo ëpp solo. solo sarax mooy jàpp nit soxna jaara. gis nga sarax mooy jàpp nit sarax moo gën a gaaw si jàpp nit. man dafa am sarax yoo xam ne bu ma la ko bu ma la ko tey bu ma la ko defalee ngay soxla nit wala tey nga ne sa soxna dem na wala koo xam ne dafa bëgg jëkkër nga mm-hmm. jëkk bëgg jëkkër tey multimilliardaire sarax yi ma lay wax boo ko defee billaahi wallaahi du mat ay weer wala ay fan nga gis kooku dikkal la mm-hmm. wala góor dig la takk tey ngeen waxante ba pare mm-hmm. mu jékki-jékki woon la ginnaaw sarax yi ma lay wax looloo koy xëcc mu ñëwaat moo koy mu ñëwaat coow dafa am ñoo xam ne sangu moo gën a gaaw si ñoom ñi nga xam ne seen nature ndox la dafa am ñoo xam ne sarax moo gën a gaaw si ñoom ñi nga xam ne la ak ay suuf ñi nga xam la gisoo sa nature bu nekkee suuf boo taxawee si foo mënti nekk loo sori sori ndox mi day day day day day day bab rek pour laal la. Mm-hmm. boo gis na te tey bu nekkee suuf wala nga nekk safara taxaw ci wetu tefesu tefesu géej. Mm-hmm. léegi nga gis na nga naan géej gi sax xanaa damaa bëgg a lekk. Mm-hmm. maa fig laal loo du am jàmm. loolu mooy diggante loolooy dox ci diggante sarax gis nga sarax soxna jaara boo bëggee nekk multimilliardaire wala millionnaire. am na sarax yoo xam ne buñ la ko jàppalee boo ko jàppee balaa. Euh, 306 jours mat. 306 mhm. jours 306 moo jàpp yàq xaaru. Mhm. mooy mii mi nekk ci yaasin. Mhm. moo jàpp euh, maanaam yaasin mooy xolu alxuraan. te maanaam li ëpp si adduna dañuy jàng alxuraan loolu boo ko jàppee bu yàggee bu fekkee da nga bëggoon adduna bépp wuy si la dañuy dem wuy si la. Hmm? xanaa xam am na artistes yu mag yu fii ñi nga xam ne ba léegi mënuñoo xew yi ñu hmm. leen topp. ah chaque jour dañ leen di jàngal am na ñu leen di jàngal 41 yaasin. ya 306 yaasin. 306 yaasin. Mhm. dañ leen koy jàngal loolu dafa nekk yoo xam ne ay secret la. Mhm. mën nañoo toog fi ñu toog da nga naan duñ sangu duñ takk waaye mënoo si ñoom dara nit ñi dañ leen bëgg te boo leen jéemee yàqal fay. Mhm. lu wér ñu si mel ne euh, waykat bi ñu naan waali. ñu si mel ne ay Youssou Ndour. ñooñu bu doon tey Dakar lañ war nañoo sàppi. waaye ba léegi tey lañu tey tey la ñuy gën a jàmb seen Dakar. kon loolu faaw nit ñi xam ko. sarax soxna jaar lu gaaw boo ko xamee nag. waxuma rek. nga xam nga ni dangaa bëgg dara nit ne la saraxal suukar wala ndox na nga dem saraxu mm-hmm. déedéet boo bëggee say alal di gën a jëm xaw déeru faral di dugub di ko saraxe mm-hmm. boo bëggee yor maanaam maanaam mu yor entreprise muy jëm kaw mm-hmm. wutal xale yoo xam ne mesure guñ nga ni sag ajjuma wala alxames ajjuma ak altine nga leen jox ñuy lekk am na sarax boo xam ne boo yaakaaree tey alal même bu doon ay milliards bu ma la ko defalee balaa bis bee delsi xaalis boobu danga nga jot loolu soxna Diarra maanaam am na secret yoo xam ne sax mënoo ko wax tey. doo ko wax sax waaw mënoo ko wax sax waaye ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan yaakaar naa ne képp koo xamante ne yittewoo na mhm. euh, numéro bi wala nga toll ci situation boobu boo wootee lépp loo xamante ne jàngoro rek suñu borom dina ko saafara mhm. waaye itam sëñ Moussa dañuy des rek ci ñi nga xamante ne eh, ñoom ñooy wàllum papier mhm. yaakaar naa ne sa diggante ak waa diaspora bi. Mhm. man wax naa ci waxate ci. sànq da nga ne ma sa diggante ak naar yi. Mhm. loolu yaakaar naa ne am na luñ ci jot a xam. Mhm. parce que ñun xam nañ ne. sa diggante ak ak ak marocains yi ak algériens yi. bugg yàgg naa la ko bëggoon laaj sëñ Moussa lan mooy sa diggante ak naar yi lan moo nekk sa diggante ak naar yi. waaye ci wàllu papier yi itam macha allah ak diaspora bi yaakaar naa ne. tey jii nii nekkatul liggéey sax. ndax jëflante bi. dëgg la parce que le problème mooy soxna nit ki boo génnee mhm. da ngay tàggat dëkk mu nekk ci yow. Mhm. parce que boo tukkee da bëgg wut alal pour ñibbisi. Mhm. kenn ñaanu yàlla tukki toog fa. maanaam secret bi ma leen jàllale. nit ki bu la jegee pour nga xaañ ko dëgg-dëgg dana dal waaye du du du du metti nit ki bu la soree si nga koy gën a mën a xaañ mu jot la. dafa am ñaan yoo xam ne maanaam boo ko liggéeyee ni lu mu dëgër dëgër dëgër ci ay kayit suñu borom da koy dimbali. dafa am ñaan yoo xam ne boo ko ni bu nekkoon foofu dafa topp maanaam koo xam ne. maanaam multimilliardaire la mu bëgg ko takk wala moom mu bëgg ko jabar wala moom mu jëkkër da koy takk. Mm-hmm. loolu moo tax ma ne la dafa am secret yu ñu leen di jaarale. Mm-hmm. am na yoo xam ne da koy junj. Mm-hmm. parce que arab dañ naan al isaaratu takfiiril aaxir am na yoo xam ne doo ko mën a wax si tere saay saay dégg ko di ko jëfandikoo. soxna Dia dafa am loo xam ne mooy tàggat dëkk. loo xam ne boo yoree dëkk tey da nga koy liggéey ci lu gën a gaaw. dëkk bi danga nga fay doo fa tuumaraang da nga fay da nga fay dund bu neex. da dund dund bu neex. Euh, nit ki nag boo dundee ci aduna da war a taxawal dara mm-hmm. gis boo wonee ginnaaw ñu xam ne yow lii nga fi def mm-hmm. moo tax arab yi dañ ne wala in wulitta wamitta walam taf al asran mu xalladan faka annaka lam mm-hmm. boo juddoo ci aduna am fi fanweeri at faatu faatoo bàyyi dara yow dafa mel ne mosoo nekk boo tukkee da nga war am jom am dogu waaye nag dogu mooy jaax joo xam ne boo ko jaarlaw si géej da si jaar jàll gis nga suñu mbokk xaal dañ naan si wuuri duuɓi capan joyi o mm-hmm. waya duuɓi temedere mm-hmm. on wona wona wona kamko wullete ko golle mum gullete mm-hmm. loolu mooy leen soxna jaar suñu bokk pël dañ naan nit ki bu dundee juróom fukki at ñu koy jooy junni at kooku kenn jooytul jëmm ji li mu doon jëf la ñuy jooy kon loolu dafa am solo nit ki boo tukkee dafa am yu gën a gaaw ci moom waaw foo dem seetlu dañ la wax saraxel nangam génneel nangam mais secret yi may jaarle koo xam ne. Mm-hmm. dafa tukki toog di ma déglu ma defal ko li ma koy defal ci incha allahu rabbi bu fekkee alal la fa bëggoon bu ñëwee dana fa indi alal. Mm-hmm. bu fekkee matériel moo ko fa yóbboon bu fa indi matériel. Mm-hmm. fekkee xam moo ko fa yóbboon bu ñëwaat dana indiwaat xam-xam. parce que dañ koy jaarle ci nasrun minallahi wa fatun xarib. dafa da ngay am suñu borom dalay jàpp na li mbir yi ba pare maanaam da nga fay am ubbeeku bu yaatu yaatu. kon nit ki bu tukkee dafa am foo koy jaarale ci nga xam ne mbiram si lay gën a gaawee dëkk bu ne dafa am lu mu jàpp boo demee tey France wala nga dem Italie wala nga dem Suisse wala nga dem tey ba Londres wala nga dem tey sax am na dëkk bu ñuy wax France bu nekk si France bu nekk si Lyon dañoo am ay gouvernement tey boo ñëwee tey dafa am nooy liggéeyee dëkk ba mm-hmm. am na dëkk am boo demee tey Italie ki fa nekk tey nekk seen seen seen premier euh, ministre bi mhm. euh, tam tudd maanaam ku jigéen ki mhm. ñi fa mujjee nekk da leen a sonal mhm. si wàllu këyit dañ fa sonn lool tur bi dafa ñëw ci man ñëwaat ci man ñu ngi indil ay yooni yoon ñu genre dëkk yooyu boo fa demee ñun ñu xam ne sa mbir si la war a jaar dafa am nooy liggéey ak ñoom foo jaar ak ñoom dafa am foo leen di téye yoo xam ne bu ñu la ko defaralee incha allahu rabbi mm-hmm. ci kattanu yàlla loo fa dem dépose dañ la ko jox ci lu mu gën a gaawee mm-hmm. am na solo loolu dafa am solo mm-hmm. faaw nga xam seen tur moo tax léeg-léeg da nga fay laaj nit ki ana seen gouvernement nangam ana seen ministre ba dañuy yaakaar sax yow da nga nekk si dëkk bi fekk bëri yàgg lu ñu lay indil tur bi moo tax dafa bëri yàgg lu ñu lay indil tur bi nga koy liggéey kon am na yoo xam ne jaara bu temps bi mayoon dinaa la ko won mm-hmm. ñi nga xam ne dama leen fay jaarale nga xam ne da ngay am ubbeeku bu gaaw mm-hmm. ci wàllu ci wàllu mm-hmm. ci wàllu koo xam ne da nga dem munoo am sa këyit pour ñibbisi loolu tamit nekk si dëkk bëgg am këyit ñibbisi surtout loolu am na ñoo xam ne ñi fa liggéey di am xaalis mais mënutuñoo ñëw mënutuñoo ñëw am na ñoo xam ne mënutuñoo ñëw am na ñoo xam ne dañ leen a def loo xam ne maanaam taqale la ak dëkk loolu dafa am Mm-hmm. dëkk boo tukkee am ñoo xam dañ lay taqale dëkk ba pour doo ñëw doo mm-hmm. indi teraanga mm-hmm. moo tax am na benn aaya boo xam ne sa am na benn mbër bu koy jàng dañ siy taqale nit ñu bëri bëri mais am na kaaraange bu nekk ci biir mbër mi nekk tey roi des arènes da koy jàng saa bu taxawee toru ñaan xam di ñaan loolu lay ñaan watta ba ma tatlu sayaatin ala mulki suleymaan ma kafara suleymaan walakin shayatina a mm-hmm. yuallimuuna annaasa sihra wa maa unzila ala malakayni bi baabila haaruuna wa maaruut mm-hmm. dañ si haaruun ak maaruut boobu ngay gis ngay dégg mm-hmm. dañ siy taqale ay nit yu gaaw waaye nag am na mbir moo xam ne boo gisee buy làmb di ko jàng day aay bi maanaam li soxla mooy wamaa hum wamaa hum bi daarin ahad illaa bi iznillah loolu lay jàng di ko baaw juróom-ñaari yoon di ko def ñeenti koñ yi nga xam ne boo soloon boo yoroon korte boo ko sànnee di ko jàpp. Mm-hmm. pour aar boppam. pour aar boppam. Mm-hmm. te loolu moo gën a gaaw loolu moo tax maanaam loo ko sànni coow lay ñëwaat automatiquement loolu lay jàng di wër ñeenti koñ. Mm-hmm. kon jaare ñi nga xam ne dañoo dem mënuñu am kayit wala ñu ñëwaat. foofu nga leen di jaarale bu ko defee. lu ñu am kayit ci lu yomb te seen alal du tas. dinañ mën a indi dinañ mën a am lu ñu indil seen njaboot mhm. bu ñu ñëwee kenn du leen ree kenn du leen mokke ayca foofu am na solo sëñ Moussa bëggoon nañ nag mu gën a yaatu mhm. euh, ndax liñ fi war a wax du jeex waroon nañoo ñëw ci cat ci sangat yi nga xamante day musal nit ci ubbeeku mhm. sarax yi nga xamante day euh, dimbali nit si li nga xamante moom mooy Mm-hmm. lépp loo xamante ne rek yitte doomu aadama mm-hmm. mais waxtu bi vraiment xoj mm-hmm. nañu bu baax a baax moo tax rek dañ ko fi yemale ba beneen yoon incha allah ñu bàyyi la rek itam nga tàggoo waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli senante bi di sant bu baax a baax a baax di ñaanal sama sëriñ sëñ Adama Salaam moom sëñ asan Salaam yàlla na fi yàgg lool te wér di leen sant bu baax a baax euh, soxna jaar di wax rek maanaam aduna fi mu toll nii dafa jaxasoo euh, ñun ñëpp ñu ngi topp riir mi ak mbumbaay bi ak tamit yenn yëngu yi ku jëful na nga jëf maanaam ku liggéeyul na nga liggéey parce que coow li ñuy wax fii ak yenn wër yëpp kenn ku ne rek kenn ku ne yaay demal sa bopp natt la boo xam ne kenn ku ne boo ko toggee yow rek yaay demal sa bopp loo bëgg nit bëgg nit kenn déggul nañ ko suul suulaane ma kon nañu wàññi yenn sëriñ si bu nit faatoo génn ne diw na nanga ma ko rey loolu dafa ñaaw ci deru sëriñ sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg day mot nit dëgg day mhm. nekk nit ku nite waaye tamit day am baatin boo xam suñu borom da koy da koy xamal mhm. sëriñ dëgg boo bokkee ci famille bu fa nit naree faatu war nga war nga koo xam mhm. te bu faatoo war na am loo ko mënal sëriñ dëgg boo xam ne sëriñ dëgg war na weesu nekk ne man defar bayre ñaanal nit ki mu tàkk laa xam mhm. loolu du baatin mhm. parce loolu xam-xam boo xam ne comme ni ngay jàngee mathématique nga koy jàngee mhm. seen nga a làq baatin nga xam ne tey lépp lu war a xew tey sa famille wala képp koo xam ne xam nga ko lépp lu war a xew ci moom suñu borom dala ko indil nga xam ko moo tax léeg-léeg di woo dinaa woo benn koo xam ne taalibe la mu nekk ba dëkk nangam wala Suisse nga ne ko quartier nangam dëkk nangam bu fa dem wala Touba nangam nga doon ànd ak ah, moytu ko du am ñetti fan ñeenti fan mu dégg kooku jàpp nañ ko kon foofu lañ war a bañ a nekk ci ay bu nit faatoo wala nit am soog wala ñu rey nit nga génn ne kii de nangam nangam ñoo tax ñu rey ko. Mhm. déedéet suñu borom weesu na foofu. Mhm. suñu borom kenn la soxna jaara mhm. kon li may tàggatoo rek di ko wax ba tey nañ nit ñi gën a góorgóorlu gën a jaamu yàlla. kenn ku ne li ngeen di liggéey nii. suñu borom si la leen mën a jaar ngeen liggéeyal ci yàlla. parce que am nga tey interview boo ma defaloon nit gis ma ci woo ma ci fekk tànkam ñu ngi neew ba liggéeyam na si yàqu ñu mocc ko te yaa boobu la ko yàlla fay yow man xam kenn xamul nu mu toll mm-hmm. loolu tey seen liggéey la mm-hmm. kon yàlla leen yàlla jëmale ci kanam yàlla defal leen tawfeex ak taysiir euh, di leen tàggatu di leen tàggu ba beneen yoon incha allah rabbi su yeneen jotaay waxtaan mm-hmm. di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ayca mi yi kon numéro yi day jàll à bas de l'écran ne jafe-jafe la dañ koo tënk ndax waxtu bee ñu xoj waaye lépp loo xamante ne jafe nekk ci doomu aadama wala nga bëgg ko mu nekk ci yow nga bëgg koo saafara incha allah numéro yi bépp boo ci wootee fépp foo mën a nekk ci Sénégal wërgal këpp waaye àdduna euh, monde entier sax la ñuy wax mhm. incha allah lépp loo xamante ne jafe-jafe la rek nga disoo ceeg moom suñu borom dina ko saafara d'ici là wala ñu topp Médina TV ci ay programme am jërë ngeen jëf